salaamaaleykum mbokku internautes yi ñuy bàyyi xel ci seen euh, site bu am solo bi seneinfo point net euh, suñu chaîne YouTube seneinfo international ak suñu plateforme yu fasantikko yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfalaat bu baax ci teewlu bi ngeen ñuy teewlu ñu leen dalal nag euh, ci émission bi nga xam ne ñu ngi ko dippee Sen Sport. ñu si dalal nag tey ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Touré di suñu naataango nekk euh, journaliste ak taskat xabaar kon ñu fas yéene rek waxtaan ak moom ci euh, mondial beeg gaynde Sénégal euh, seen ko participation ci bële mondial boobu ba léegi ak nag qualification bi nga xam ne it am nañ ko ci lii di huitième de finale yi way ci daje ki nga xam ne moom mooy équipe bu Angleterre kon daal waxtaan bi daanaka. Euh, loolu lay doon balaa may sori rek kon dama koy bàyyi euh, moom it euh, mu nuyanteeg mbokk internet yi. Mm-hmm. Abdoulaye nuyu nañ la. waaleykum salaam Coumba Ndoffène maa ngi lay nuyu di nuyu également ñi nga xamante ne moom moo di say internet di nuyu également ñëpp ñi nga xamante ne dinañ ma xam ne à travers justement Seneinfo. fo mm-hmm. am contentement aussi si invitation bi. dëgg la ñun ñoo gën a kontaan di la jaajëfal ci disponibilité bi. participation gaynde yi. mu commencé léegi si mondial bi peut-être boo doon def benn bilan ci li nga xam ne moom lañ weesu. Mhm. mooy match de poule yi ana noo ko gisee. alors avant tout d'abord je tiens à féliciter les parce que c'était pas évident. Mhm. ndax booy xool lañ leen di dugal ci boo xamante ne amaana gisoon nañu déjà ki nga xamante ne moom moo di Hollande mu nekk équipe bi nga xamante ne moom mooy équipe favorite bi donc euh, peut-être mënoon nañ ne ca njëlbeen deuxième place bi moom moo des kan moo koy jël. ñu doon ko discuter équipe boo xamante ne mooy équipe bu Équateur mu nekk équipe boo xamante ne tamit euh, c' est une équipe très bien organisée euh, li nga xamante ne moom moo di compétition bi peut-être de la pire des manières muy défaite que c' est toujours très compliqué nga li nga xamante ne moom moo di compétition commencé kooku défaite mm-hmm. mais on a su se relever euh, deuxième gis nañu prestation bi nga xamante ne moom la Lions yi def parce que booy xool itam pays organisateur c' pas facile moom it mu jóge comme toi jóge ci euh, ci défaite ngeen daje match boo xamante ne noonu naa ko tuddee comme genre finale la. Mhm. Euh, nga remporté ko. waaw voilà avec euh, deux buts de différence mu nekkoon lu am solo donc dernier match bi nekkoon match bi nga xamante ne aussi ñu leen ci doon xaar trop ñu def aussi prestation boo xamante ne dañoo sigil ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Afrique yëpp. Mhm. donc bu ñu taxawee tuuti ci li nga xamante ne moom moo di match de poule ñu gis ne booy xool bu ñuy mën a tirer li nga xamante ne xëy na bilan la. Mhm. Lions yi ils ont marqué je crois cinq buts concédé trois buts buñ taxawee tuuti ci bii yi nga xamante ne ñoom lañ concédé ak ñan lañ ko concédé ban équipe la donc euh, comme ni ma ko waxee sa njëlbeen Hollande lañ njëkk a dajal mhm. booy xool foofu sax euh, def nañu prestation boo xamante ne xëy na xaaruñu ko woon en terme de contenu. parce que Lions yi boo xoolee ils étaient très bien ci je peux dire même que Aliou Cissé. Mhm. bataille tactique bi da ko da ko remporté durant quatre vingt cinq minutes yoo xamante ne Lions yi dañoo def prestation de haute facture. donc euh, deux buts yi ñu concédé gis nañu si anam yi nga xamante ne moom la amee xëy na tey. Euh, si Mendy était un peu plus vigilant on aurait pu éviter au moins l'un des buts euh, donc euh, ñu jëlee fa li nga xamante ne ni moo di défaite mhm. et on a su se relever deuxième mati bi ñu dajeek Qatar on devait faire le jeu gars yi génn football ni mu waree ba dugal ñetti but concédé benn aussi de troisième match bi nekkoon li nga xamante ne moom moo di final bi tey Lions itam ñëw également def match bi war parce que il fallait que ñu gagné pour mën a génn donc ñu def match bu rëy bu mag gagné ko euh, génn ci li nga xamante ne moom moo di euh, match de match de poule yi. Mhm. ak euh, également jël deuxième place bi voilà. kon daal mën nañu ne bilan bi satisfaisant quoi. oui c'est ren euh, coupe du monde Qatar bi dafa nekk dafa am benn euh, touche bu particulière mm-hmm. parce que booy xool pour la première fois équipe euh, surtout par rapport à prestation équipe africaine bi pour la première fois ñu gis ne joué nañu deux matchs ci poule yi te amul benn équipe africaine boo xamante ne éliminé nañ ko donc mu nekkoon prestation boo xamante ne xëy na équipe africaine yi defoon nañ ko alors que poule yi ngeen dugaloon yëpp ay poule la yoo xamante ni c'était <laughs> dëgg la euh, am na solo euh, Abdoulaye euh, jàngat yooyu nga xam ne kon defal nga ñu ko léegi yàlla def na ba qualifié nañ li nga xam ne moom mooy huitième de finale mais nag adversaire bu ponkal la ñu am moom mooy Angleterre Angleterre yow ana ana naka nga yaakaar ne d'abord noo gisee adversaire boobu di Angleterre ak tey naka la ñu war a aborder li nga xam ne mooy boobule match mu cee génn je tiens à préciser que beneen compétition moom mooy commencer. Hmm. parce que phase élimination directe yi lañ jëm. comme ni ko waxee et ñun aussi on a duré le le l'a dit parce que Angleterre je crois que c'est l'une des équipes favorites de ce tournoi donc euh, tey booy xool mënoo lim quatre équipes yoo xamante ne mën nga jàpp ne mën nañu prétendre jël coupe du monde bi sans boole ko ci waaye mu boo xamante ne c'est tellement fourni joueurs yoo xamante ne ci équipe yu mag la ñuy évoluer hmm. ñu xam leen di leen seetaan ci week-end yëpp en Premier League donc euh, mu nekk match boo xamante ne tout d' abord il faut dire que les lions sont condamnés à l'exploit pour génn ni ñu koy waxee donc euh, booy xool li nga xamante ne mën naa ko taxaw un peu seetlu si euh, performance su équipe bi nga xamante ne moom moo di Angleterre on peut dire que bu fekkee dañuy yem ci tournant bi kese boo c' est une performance en dents de scie parce que booy xool dañu génn seen premier match contre équipe bi nga xamante ne moom moo di Iran def prestation bu rëy dóor 6 bi à donc mu nekkoon loo xamante ne it euh, ñëpp bàyyi woon nañ daan xel. ñu mhm. ñëw dajeeg équipe bi nga xamante ne moom moo li États-Unis xëy na nul match nul et vierge donc jot ñoo gagné équipe boobu. te mhm. itam dañ leen critiqué woon lu bëri par rapport ak prestation bi nga defoon nañ ko États-Unis mhm. xëy na pel pays de Galles comparé ak États-Unis et les autres euh, équipes mën nañ ne yeggul ci niveau boobu donc Sénégal beneen équipe la Sénégal lu Iran. Sénégal du équipe bi nga xamante ne it euh, moom moo di États-Unis donc euh, confrontation dëgg moom la ñuy xaar ci équipe bi. Mhm. leneen li nga xamante ne mën naa ko préciser man je me dis que match bi nii match euh, kii bi la ki nga xamante ne moom moo di bi. ngeen di ko wooyee nu mu tuddati El Tactico. moi je me dis que c' mu prouver dëgg ne moom El Tactico parce que booy xool gis nga football entraîneur baromètre yi ñu ko mën a nattee dëgg dëgg dëgg da ciy bokk itam. booy eng booy aborder benn match boo xamante ne tout le monde te voit comme équipe bi nga xamante ne tey doo favori wala ñëpp ñuy gis ne xëy na Angleterre euh, qualification bu yomb lay am. waaw mm. gannaaw bi nga xamante ne euh, séddale nañ ko équipe bi nga moom moo di Sénégal donc je me dis comme booy xool li mu li nga xamante ne jot na ko def contre Hollande moi je me disais que comme ni ma ko waxee si si début bi mm. quatre vingt cinq minutes yoo xamante ne la de haute facture la defoon xëy na tey ñu tétee euh, quelque erreur wala quelque manque de vigilance xëy na tey Hollande doon nañ fa génnee résultat bu résultat bu positif ah, donc je m'attends à ce que mu xaw a génnewaat pareil li mu defoon contre Hollande c'est vrai que au départ on s'était dit Hollande moom mooy équipe bi nga xamante ne moom mooy équipe favorite bi ci match bi mhm. mais biñ demee gis prestation bi xool li nga xamante ne def nañ ko montré nañ ko en terme de contenu tey affaire yi booy xool fañ doon xaare Sénégal donc match bi aussi dañ koy aborder sans complexe moi je me dis qu'on n'a rien voilà parce que déjà exploit la nga génne li nga xamante ne moom moo di euh, match de poule Sénégal booy xool histoire am trois participations la waaw benn bi dem na ci ba quart de finale beneen bi gis nañu nu mu demee match de poule lañ ko génnee te booy xool euh, question de carton la si lañ ko éliminé voilà donc euh, troisième match bi dañuy xaar à ce que Aliou Cissé comme comme on l'appelle El Tactico vraiment mu teg dispositif boo xamante ne dana xaw a tuuti la mu defoon ci Hollande ba nga xamante contre contrecarré euh, ki nga xamante ne moom moo di Louis Van Gaal ba quatre-vingt-cinq minutes yoo xamante ne xëy na jàppoon nañ ne Hollande mënalul dara équipe bi nga xamante ne moom moo di Sénégal donc même prestation bi xëy na la ñuy xaar mu reproduiraat contre équipe bi nga xamante ne moom moo di Angleterre jouer le match sans complexe. Mm-hmm. et aussi tamit bu fekkee étudier na joueur anglais dëgg dëgg dëgg nu mu waree gis na ne ils sont très forts les côtés dafa nekk équipe boo xamante ne xëy na dañoo gaaw ci bal bi. mais on peut pas s'attendre sax a ce que mu am mu exercer benn domination bu importante trop ci équipe bi nga xam te ne moom Sénégal parce que Sénégal nañ koy waxee mën na rivaliser équipe boobu noonu mm-hmm. mais il va falloir que mu il est condamné à l'exploit il faut qu'on soit très organisé et dans les duels aussi bañ leen may dara ñu koy waxee mm-hmm. est-ce que tey euh, le fait que mu ñu am ay joueurs yu bëri yu évolué ci championnat anglais bi mm-hmm. est-ce que loolu mën na nekk euh, benn benn atout comme ni ko nit ñi di waxee oui parce que booy xool euh, li composé équipe euh, bi nga xamante ne moom moo di Angleterre boo xool seen championnat joueurs yi ëpp seen championnat dañuy évoluer mis à part xëy na peut-être un peu dans l'entre-jeu euh, jeune bi nga xamante ne moom moo di Bellingham mais sinon même prototype bi la ñu yor même joueurs yi la même confrontation yi la même duel yi la donc comme ni ñu box pour box to box la équipe la ay duel la mm. lenn peut-être moom moo am ci. xëy na mu mun ko considérer comme atout ci équipe bi nga xamante ni moom moo di Angleterre mooy coup de pied arrêté dafa nekk loo xamante ne xëy na dañ cee dañ dañ cee xarañ comme ni ñu koy waxee. donc danger bi mën na jóge ci côté boobu noonu. donc match bi nga xamante ne moom la ñuy aborder il faut faire en sorte que de concéder moins de fautes voilà de faire du moins euh, de fautes donc euh, rester très regroupé aussi et surveiller les côtés aussi. waaw dama gis ne mën na nekk secteur boo xam te ne secteur clé la ci match bi. Mhm. sinon aussi am na beneen joueur boo xam ne xëy na mm, benn yoon la ko Aliou Cissé euh, dugal mooy suñu digganteeg euh, Hollande. donc mu dugg deuxième mi-temps xëy na prestation bu mu def euh, c'était pas peut-être à la hauteur des attentes mhm. mais gis naa am naa pressentiment que match bii nii xëy na match am la. buñ ko dugalee moo di Jackson. di évoluer équipe bi nga xamante ne moom moo di Villarreal en Espagne donc nekk na joueur boo xamante ne techniquement il est très fin aussi booy xool ñoom dañu am charnière centrale boo xam ne c'est composé aussi de bon xëy na mën nañ ko considérer comme maillon faible sax même si man bokkuma si ñu partagé loolu xëy na un temps yi xaw na performance am xaw na ça laisse un peu mm. mais ba tey teewul défenseur bu mag la gis naa ne bu yooy xool par rapport ak vitesse am tey Boulaye Dia moo xam muy Boulaye ja wala Jackson boobu mën a limal xëy na mën nañ ko sonal trop euh, bu fekkee bokk nañ ci match bi nga xamante ne moom moo war opposé. suñu joueur itam am na xam ne mën nañ ne miin nañ championnat anglais bi am yi nekk championnat anglais bi. Mhm. ay joueur Sénégal yu fa ne. parce mhm. mën na mën nañu indil peut-être benn plus. way xëy na xëy na mën na indi parce que mooy comme ni ma la ko waxee ci njëlbeen rek même confrontation bi la ñuy xaar parce que booy xool ñu ne itam suñu ossature. xëy na euh, joueurs yi si évolué yëpp si ñu bëri bu ñu jaayu primary aussi euh, fa la ñuy football boo ko commencé si ki nga xamante ne moom moo di Mendy ensuite euh, gis nga Koulibaly également foofu lay joué boo ñëwee tamit dans l'entrejeu peut-être ki nga xamante ne moom moo di Idrissa Gana Gueye mu nekk joueur boo xamante ne joueur bu mag la aussi tey Sénégal wara a joué moom mais Nampalys mu ngi fa te Leicester la nekk donc je crois que moom mën na il pourrait faire la tâche donc euh, góoma ñu am njàqare trop ci ci ci côté boobu noonu ci composition bi te am na ñeneen ñaari joueurs yoo xamante ne euh, du point de vue athlétique tamit ñoom ils peuvent rivaliser avec les anglais moo xam muy euh, ki nga xamante ne moo di Pathé Ciss moo di ki nga xamante ne moom moo di également joueur bi nga xamante ne mooy nekk Olympique de Marseille di di équipe bu mag aussi donc joueurs yooyu noonu yëpp ñu ngi leen di xaar ci match bi donc ñoom parce que duel entre jeu bi aussi day am solo trop ci ci match bi ñu jëm Euh, am na solo euh, suñu gaynde bii di Cheikhou Kouyaté. Mhm. Euh, annoncé nañ ne reprendre na entraînement yi mais séparément. Mhm. xam naa sax peut mën naa am suba moom du fubal ndax xam naa moom loolu wóoragul ndax mu fubal suba mais ñu bëri dañ naan en tout cas présence am. Mhm. ci équipe bi dina am lu mu lu mu apporter de plus. waaw d'autant que moom miin na euh, yooyu les compétitions ndax boobu boobu la gis nga am yow it. Mhm. d' abord di la féliciter si euh, focus bi nga xam te ne def nga ko si jour bi nga xam te ne di Kouyaté xëy na gars yëpp jàppoon nañu ni buñ demee ba indi jour yi nga xamante te ne buñ demee ba intégré ki di Pathé Ciss intégré également ki nga xamante ne moom moo di Pape Gueye xëy na ñoom ils n'auront plus leur place à jouer dans l' euh, te ki nga xamante ne moom moo di Cheikhou Kouyaté a montré le contraire. gis nañu prestation bi nga xamante ne defoon na ko contre la Hollande. Mm-hmm. donc euh, mu ne nekkoon na xëy na matcham la woon mënoon na ko jouer tey parce que moom tàmm na rencontre yi nga xamante ne ñoo mel noonu. tàmm na di opposé wu ak joueur anglais yi. Mm-hmm. mais je me dis ko tamit ba tey euh, amul du yàq dara ci ci li nga xamante ne moom moo di euh, ci composition équipe bi si prestation également équipe bi parce que booy xool tamit am na des jeune aussi qui peuvent faire le boulot. beneen bi des itam compétition c'est très difficile nga revenir si yenn blessures yi ñëw garder même forme bi nga bi nga garder woon te booy xool itam moom si digg bi la nekk si milieu terrain bi lay joué te foofu day laaj joueur bi aussi mu nekk cent pour cent parce que duel yi fa nekk dafa bëri te dafa nekk secteur boo xam te ne secteur clé la mhm. ci terrain bi dëgg la ah euh, Touré xanaa rek damay laaj kon looy looy jeexale <laughs> waxtaan bi alors avant bon peut être di euh, souhaiter suñu li ay bonne chance si li nga xam xamante ne moom moo di match demain bi di xaar également ki nga xamante ne moom moo di Aliou Cissé moi je me dis que match bii nii match la parce que coach fi ñu lay nattee mooy tey xëy na nga indi équipe boo xamante ne tu ne pars pas favori di daje équipe boo xamante ne xëy na ñëpp ñi nga xamante ne ñëpp ñooy analyser match yi ñoom ñooy observateurs yi jàpp nañ ne xëy bi xëy na équipe bi bu la jàppee da lay tey nga ñëw wone prestation boo xamante ne wala nga contrecarrer leen ba gagné match bi donc euh, match bi j'attends beaucoup du coach parce que tamit bu ñu xoolee ci match yi ñu mujjee gis nañu ne mën nañu dañuy def première mi boo xamante ne premier première mi-temps bu mucc ayib lay doon mais après dañuy constater ne dina am dix à quinze minutes de flottement yoo xamante ne bloc bi day baax trop bloc bu baax sax xëy na bañuñu ko mais boo ko defee it da ngay def en sorte que di concéder moins d'occasion te équipe bi gis nañu ne macha allah équipe bi jàmbaare na te booy xool bi ñu jël bon mise à part peut-être euh, match Hollande bi benn bi je crois lañ jël euh, dans le jeu yeneen yi peut-être euh, mën nañ jàpp ne bon si coup bi arrêté la jógee. Mm-hmm. donc daal. Aliou Cissé man d' abord ci match bi dama ko siy xaar lu bëree bëri. ci biir moom Aliou Cissé moom sax ñu ngi doon annoncé ne dafa dafa dafa dafa tawat ñu ngi koy ñaanal en tout cas mu mu wér incha allah ba ñëw mun a def comme benn coaching gagnant. Mm-hmm. tey sax d' ailleurs conférence de presse euh, devant match bi nekk ko woon nga xam ne moom mooy euh, adjoint moo ko wutu woon euh, ci ci lii di conférence boobu de presse boobu ñu koy ñaanal daal en tout cas mu wér am incha allah yàlla may ko wér. Euh, ba ba mu mën a coacher coaching gagnant boobu ngay xaar ci moom kon Abdoulaye Touré ñu lay jaajëfal. Mm, euh, di jaajëfal itam mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi tal saa su ne di leen jox dig daje rek lu yàggul dara ak beneen invité ci seen émission bii di Séné Sport.